et avec Wave. su boobaa ne la yóbbu sa application Wave ngir nga valider paiement bi boo ko valider ne la yóbbuwaat ci bi nga am combat bi te itam ne la yónnee benn message boo xam dina am benn lien de connexion automatique boo xam ne saa boo bëggee seetaan danga ci cliquer mu yóbbul directement ci combat bi. te itam dina la jox benn code boo xam ne saa boo ko bëggee a utiliser ci beneen appareil code boobu ngay utiliser. bu fekkee nag da nga jënd sa paas ba noppi bëgg koo seetaan sa télé da ngay utiliser code bii nga xam ne moom la la yónnee nga dem ci page combat bi. nga bës fii ñu bind connexion par code te ci suuf mu am logo télé bii boo ci cliquer dina la andil fii ñu bind saisir code ici code bi nga xam ne ni moom lañ la yónnee ci message bi moom ngay bind foofu boo ko bindee nga bës connexion su boobaa di nga mën a seetaan combat bi te doo ci am benn gàllankoor. te di leen fàttali ne benn code pour benn appareil rek la.

lépp ko tax Jackson ne ko man maa fi nekk mooy xale bi nga xam ne maay duusu xale bu nu sol yàpp mag fee na mag rek la fi nekkee Modou Anta kan mooy Jackson Modou Anta kan mooy Lac Rose jërëjëf Mouhamadul Amin maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di nuyu ñi tey fii ci Kaolack yépp di leen jaajëfal di jaajëfalaat Makan Meng bu baax a baax di ko jaale waa di jaajëfal Abdoulaye Ndeye fatigable waaye Lamine combat la boo xamante bi nii pour le 2 juin allahu rabbi arène nationale foo sànni mbatt teg parce am na combat yoo xamante bi ne Abdoulaye Ndiaye taxawal na ko ci ku ci mel ne prince bu ray war na fa bëri ak oligens am na fa yeneen combat yoo xamante bi nii incha allahu rabbi mel na comme combat yooyu waaye lamb ji Lamine Birima mii di Jackson dafa duggoon Fass am lu fa def booba nag Lac Rose aj na léegi géej naa bëre mu andi rakam Papa Ndoye mu bëreeg moom dóor ko mu daan Jackson continué ci yoon wi di daan Lac Rose ñëw ci diggante bi ñàkk ci diggante ma coincé ci combat bu métti jël Fils de Balla ñu ne ko mënoo ci dara mu ñëw bett Sénégalais yépp nekkaat ci état de forme boo xamante ni nii 2009 ban gëjee na gis Lac Rose moom laa gisaat tey mu jàkkaarloo xale boo xamante ni nii nag ci espoir yi géejewaay la bokk. Lamine ma delloo la kàddu gi ñu jubli ci signature bi. man damay ñëw rek rapidement ci Jackson. Hmm. ndax dafa furli si. wala nga amul xew. ndax Lac Rose bii catégorie ba nga nene toog. dëgg la. dañu waxante dëgg de yàlla rek a tax. Boy Niang Ama Baldé Sa Thiès. comme tey Jackson egg na plafonné. Hmm. ndax dara bu ñu defee ba ñu dugg dans la cour des grands. Abdoulaye Jackson Sénégal yëpp dañu ne risque nga jël ci jël Lac Rose meññu kanam moo koy soleel boppam lan ngay wax Sénégal yi ndax la doon jot na faas leen jàppoo xale bii nga gis moo ko indi xale bii nga gis Moustapha Guèye ko indi waaye ku la xam ne daanaka ci wàllu lamb lan ngay wax Sénégal yi. waaw Lamine maa ngi ñëpp. maa ngi sant yàlla bu baax di jël si di sant suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fu mu tëdd yàlla na gën a fu mu jógee di ñaanal maire ak père Bakar Sey ak imam Hamad Ndiaye yàlla na yàlla yërëm taxare di ñaanal père Gaston yàlla na ko yàlla yërëm taxare àjjana di masawu Makar bu baax a baax a baax di nuyu waa Guédiawaye bu baax di nuyu waa Waalo di nuyu waa Gué waa Boune ñëpp. waaw di nuyu sama grand bu ma jógee léegi muy grand Ibrahima dalal ma fii Kaolack di nuyu waa Kaolack yëpp di béyee ñëpp di ziar di nuyu grand béy bi ma dal ñoom Elton ñoom Amzian ñoom Xalima di nuyu sama adversaire la di ñëw pour remporter mondial le deux juillet yal na yàlla suturaal le deux incha allah ñu def mu daan defaat ay ci Lamine waaw dañu ñëw rek pour lamb rek lan moo boole ama dañ ñëw pour signature pour remplir contrat bi di ñaan yàlla le 2 juin incha allah yàlla may ñu ndam yàlla suturaat ñu Lac Rose. ba la la mën a yóbbu. waaw ah, bu ñu mën yóbbu bëri na. parce que ay xale lañ ama donc porte la boo xam ne bu duggee si grand frère yi kon lamb yi kafe wuñu ko fooye wuñu ko waaye. kon fooye. Ah, non Lac Rose. au soir du 2. jëlee man Tamba bi. Sénégal yëpp dinañ ne. l'expérience face à la jeunesse dañu wax ni l'expérience de Lac Rose face à la jeunesse de Jackson lan ngay wut ci xale bi loolu la at lu yëpp di laaj. waaw comme moom ko waxee dañuy nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu waa Kaolack di jaale suñu père Gaston làmb la ci champion la moo tax làmb war a ñu war a jël maa ngi ñaan si làmb ñu amal ndam ci kaw xalaat lan ngay wut bu dellu ginnaaw xale bi nee du daw du dellu ginnaaw. koo doon doon lay doon fële nga xam ne moom mooy ci arène nationale moo daan tax. sama question mooy Lagos. dafa aay ci ndaama est-ce yi yii la wala du yooyu joxoon ma ko micro bi. waaw sant yàlla rek yooyu yëpp ñëwul le deux daal incha allah yàlla na yàlla suturaal ko moom jàmbaar la man jàmbaar la man ma laa ma tuyaat la. parce que daw du ma daw. waaw moom day attaqué day bañ a day gañe te man dama lu ma maye dara ñoom yàlla yàlla yàlla suturaal ñu. waaye. vite fait yi nga doon def gars mu jeex mën nga ko def la grosse mi. ah loolu lañ rek. si kàddu yàlla ñun moom xam nga bàyyi yoonam. mën nga koo def. bëgg naa ko incha allah. bu taxawee mën nga koo mutué. bëgg naa ko incha allah. la gros. Jackson nee na boo taxawee mu mutué la jëlee la fi. loolu. waaw. boobu nee na dañuy vite fait jëlee. waaw loolu amul problème la dee yàggatul la dee yàggatul waaw. kon mu ngi noonu mbokk yi le doon lay doon fële ca Arène Nationale. Abdou Lahad la waaye fii ñu añee su boobaa ne la yóbbu sa application Wave ngir nga valider paiement bi boo ko validé nañ la yóbbuwaat ci page bi nga am combat bi te itam nañ la yónnee benn message boo xam dina am benn lien de connexion automatique boo xam ne saa boo bëggee seetaan danga ciy cliquer mu yóbbul directement ci combat bi te itam dina la jox benn code boo xam ne saa boo ko bëggee utiliser si benn appareil code boobu ngay utiliser. bu fekkee nag danga nga jënd sa paas ba noppi bëgg koo seetaan sa télé da ngay utiliser code bii nga xam ne moom la la yónnee nga dem si page combat bi. nga bës fii ñu bind connexion par code te ci suuf mu am logo télé bi boo ci cliquer dina la andil fii ñu bind saisir code ici code bi nga xam ne ni moom lañ la yónnee ci message bi moom ngay bind foofu boo ko bindee nga bës connexion su boobaa di nga mën a seetaan combat bi te doo ci am benn gàllankoor. te di leen fàttali ne benn code pour benn appareil rek la. moo xam ngay utiliser ci sa téléphone wala nga koy utiliser ci sa télé waaye benn code pour benn appareil rekk kenn mënul utiliser benn code ci ñaari appareil yu bokkul